toujours dans votre scandale de ce 23 avril 2024 euh, sur la chaîne des grands événements ginnaw lol nak ki di Serigne bakay Ndiaye ginnaw bu mu jàkkaarloog suñu natango yu Dakar instant amna ay kàddu yo xamanteni yëkëti na ko jëmlé ko ci li nga xamanteni moy mooy régime mu Bassirou Diomaye ak li nga xamanteni moy délégation bi ñu yóbbu fofu ci FMI pour wuti ji ay xaalis nañ lu ju Serigne bakay Ndiaye dellu ci waat naka lañ mëna def parce que ay nit bo leen di jité da ngay wax ñu mëna nekk hmm. bu ni bëgg nañu yow bëgg ngay wàññee suukar ak ceeb ak diwlin xam nga ni mënoo ko baa boog mën a ko kon jàpp nga ni ci seen attends may ma ma égal xam nga ni mën a ko mhm. da ngay toog ak ñoom mhm. wax ak sénégalais yi luñ mën a dugg seen nopp ñu xam délégation ministère des finance ñi ngi dem actuellement seeti FMI ak banque mondiale pour parler de système bi ngeen doon wax bu doon bu ñu doon dañ dañu change système dañuy wax ni waxatuñu ak FMI waxatuñu ak banque mondiale pour pourtant fa lañ dem di fa wuti xaalis banque mondiale teg condition yoo nga xam ne buñ ko defee waxuma la wàññi njëgu euh, dund bi du am mais day yokku parce que tey lii banque mondiale teg bu ñu ko appliqué mooy quatre cent milliards yoo nga xam ne état bi daf ko doon subventionné dund bi dañ koy dindi parce que yow tey boo jëndee kilo mburu kilo boo ko jëndee jàppal ni état du Sénégal subventionné la ci au moins lu ëpp juróomi dërëm boo jëndee kilo suukar état du Sénégal lolu moy politique bi fi Macky Sall bàyyi boo jëndee kilo suukar état bi fayal na la ci fukki jurom wala ñaar fukk bo jëndee litre diwlin état bi fayal na la ci ñaar fukki dërëm ak yenen ak yenen ak yenen plus de 1000 et quelques milliards en 5 ans yo nga xamni ni état bi daf ko subventionné

donc dem nañu bërki dem dafa xaw ma si ñibbisee ñu ñu ñibbisee guñu dem nañu euh, discuter ji ak la banque mondiale et le fonds monétaire mais conditions yi ñu teg pour ñu appliquer ko leneen lay doon ku dëkk bi tàkk loolu tax olof yi naan ku tëdd fa mburu tëddoon xam ne mburu jàmbaar la xam nga toog fee rek naan nañu wàññi cher na cher na Sénégal a gën a cher naa nga yomb na damay fàttali président Wade ndeysaan dañ mos a toog di waxtaan yàlla na ko yàlla muy gudd fan ak wér benn guddi ñu toog di waxtaan bi ak mu ree ber quoi président munima ni ma benn bis rek laa mos a man ko kañ la woon mun ma guddi gi ma Abdou Diouf woowee ni ma Ablaye man ko mun ma félicitation tu as gagné mu wóor ma ni nag tey Sénégal gépp teg nañ ko ci mhm. émission soxna Bassirou Diomaye qui kan ci la ayewon, ci aw suis bi la c'est bien voilà lolu moom rupture la de système bi sama gars yi ci côté du système président premier ministre ñeenti jong ba don la bon je xam ngeen ni de vous la dama koy toj xam alors donc pour wane ni. kon yaakaar naa ni muy ay cadre yo xamanteni ki di Serigne Mbacké Ndiaye nekk ancien ministre ci régime mu Abdoulaye Wade dal dina koy yëkkati jëmale ko ci régime bu bes bi di Bassirou Diomaye fay ginnaw bi nga xamanteni dañuy liggéey woon ak askan bi suñu egsi au pouvoir dañuy yaa wàññi lii di denrée de première nécessité manam muy ceeb diwlin manam lepp lo xamanteni dal sénégalais dañ koy soxlo mburu location bi carburant essence dañ koy wàññi mais soo demee ba nga xamante ni egsi nga ci pouvoir xam ne réalité opposition ak réalité pouvoir bokkul da ngay dem soit toog ak askan bi wax leen li mën a nekk et je crois que loolu la ñu war a def xam ni que carrément li ñu waxoon ak li ñu ko foogee woon ba ñu egsee fii xam nañu loolu mënul nekk donc muy ay kàddu yoo xamante ne sëñ Mbacke Ndiaye moo ko yëkkati jagleel ko le nouveau régime bi ci topp ne nañ dañu woote woon rupture woote anti système te ku wootee rupture woote anti système yakarna naa ni soo ñëwee waroo dara ci continuité li nga xamante moy système bi et ñom biñu ñëwé la première des choses après 18 jours dañ def délégation yóbbu leen foofu ci FMI te ku ne FMI FMI moy système bi donc mëno nek anti système pare di yónnee pour leb xaalis fofu ci FMI alors que ñoo ñu xam nga ni tay pour ñu dimbalé la jox la xaalis du tax sax nga wañi sa dundu dañ lay pousse pour que nga gëna yok dundu bi parce que lolu la wa FMI proposé li nga xamante moy gouvernement Sénégal que ñu dindi subvention bi jëm ci walu li nga xamante moy électricité bi ak li nga xamante ne mooy carburant bi kon nañu jàpp ni que fan yi ñu jëm lii di courant bi dina yokkuwaat lii di carburant bi dina yokkuwaat donc ñi doon prôné li nga xamante moy anti système bala ngay prôné anti système da fay fekk nga xam lan moy système mais so xamul système munoo prôné li nga xamante mom moom nga koy contrer pour que nga mëna contrer ben fièvre il faut que nga créer ben vaccin ci ben fièvre faut nga xam fièvre bobu lan moko indi ak lan moko lal pour que nga mën a créer likoy koy contrecarrer donc anti système ak rupture yakarna naa ci làmmiñ la yemoon mais xamuñu won lan moy système bay créer anti système ba duggal ko ci nopp doomu sénégalais ba nga xamante ne biñu excès ci pouvoir bi xam nañu que carrément c'est diamétralement opposé à la réalité réalité ba ñoom lu ñu foogoon en tout cas muy kàddu yi nga xamante ne kii di Serigne Mbacké Ndiaye daal dina koy yëkkati.